ci li nga jóge woon ba ñu yóbbu la prison foofu aw ma lu ma la fa mun a mas taw mais aw ma lu ma la fa mun a encouragé wala quelque chose comme ça parce que. c'est rien compris. xam nga li tax mënuma faa wax. Mhm. parce que mënuma doon jigéen am ku ma tuumaal. parce que mënuma doon jigéen am ku ma tuumaal. parce que mënuma doon jigéen am ku ma tuumaal. parce que mënuma doon jigéen am ku ma tuumaal. am beneen jigéen bu la tuumaal. am beneen jigéen bu la tuumaal. am beneen jigéen bu la tuumaal. suma faré rek na fekk laa wala seytaane la damay mandu sama gay aji sar néna néna na man man aji sar mënumaa don jigen am ko xamné man aji sar dama ko tumal est-ce que ngeen ko bu baax li wax mënumaa don jigen am kuma tumal kon ça veut dire que yow da nga tumal doomu jàmbur yaa ngi dégg mu ne ko mënumaa am kuma tumal yow tamit am ku la tuumaal moo wëlbatiku diglu leen fii. ci li nga jóge woon ba ñu yóbbu la prison foofu aw ma lu mën fa mun a mas taw ni aw ma lu mën fa mun a encouragé wala quelque chose comme ça parce que. c'est compris. xam nga li tax mënu ma faa wax. Mhm. parce que mënu ma doon jigéen am ku ma tuumaal. parce que mënu ma doon jigéen am ku ma tuumaal. parce que mënu ma doon jigéen am ku ma tuumaal. parce que mënu ma doon jigéen am ku ma tuumaal. am beneen jigéen bu la tuumaal am beneen jigéen bu la tuumaal su ma paree rek naa fekk laa wala seytaane la damay maandu. ma wëlbatiku di am fu may far kon damay nekk naa fekk gars yi est-ce dégg ngeen bu baax li nga xam ne moom la aji Sarr wax Adji Sarr nee na man mënuma doon jigéen am ku ma tuumaal yow ci sa jëm bopp yow Kaliphone am ku la tuumaal. ma wëlbatiku di am fu may far loolu su ma ko defee kon damay nekk naar fiq ça veut dire que moom nekk na nit koo xam ne waxkatu toj-toj la saa yu waxee day wax ay toj-toj ñi ko je ñi ko jegee sax normalement dañ koo war di noppiloo parce que moom saa yu waxee rek dina gën a dugal boppam benn nee na mënul doon jigéen ba noppi am ku mu tuumaal ba noppi Kaliphone Sall moom wëlbatiku am keneen ku ko tuumaal léegi moom su jëlee position foofu di am fu muy far ci ñoom ñaar kon day nekk naar fekk ça veut dire que kon Kaliphone bi nga xam ne dafa jël position yow ñëw ne la daf lay jàppale kon da ko bëgg a def naar fekk moom noonu laa jàppee wax ji benn nee nga yow da ngaa nekk jigéen ba pare am koo tuumaal pour pourquoi ngay tuumalaate léegi. moom ak jaaxal. comme yow leer na la ne yow léegi da ngaa am koo xam ne yow da nga koo tuumaal comme ni Kaliphone comme ni ñu tuumaalee Kaliphone yow tamit noonu nga am koo tuumaalee noonu. tuumaal la mu de tuumaal tuumaal moom la utiliser mooy man dama am koo xam dama ko tuumaal man ma tuumaal ko ba pare yow am ku la tuumaal léegi man naka laay ñëwee di am fu may far kon su ma ko defee damay nekk naar naafeeq yow ba nga nekkee naar naafeeq mooy ba nga demee bay tuumalaate ndax comme yow leer na la ne Kaliphone moom dañ kaa tuumaal yow tamit yow nga xamal sa bopp ne dangaa tuumalaate yéen li Xalaat TV di wax naan waajooju ay duma national mok fi jele mais yeen ci sen dem bop dañ leena wara duma ay duma national parce que yeen da ngeen a yab sénégalais 14 mort 14 mort ci lo xam yeen yéen da ngeen chaque jour ngeen taxaw di wax ba duggal sen bop 14 mort wala yeen ñooñ da ngay yaakaar ay sank lañ lañ wala ay gunóor wala ay melentaan après nga taxaw nga da nga da nga da nga da nga da laté quoi yeen waa ji fu ñu ko duma ay duma nationale ba mu jóge fi yéen dinañ leen duma ay duma international parce que yéen da ngeen a yab sénégalais li ma gën a metti nag waa 2STV yéen xawma tele ngeen yor xawma seen YouTube ngeen yor loolu bu ko benn waay bu yoroon seen YouTube comme man su ma ko defoon sax garaaw parce que sama seen YouTube laa yor maa ko moom mais yéen ngeen yor télévision loo xam ne dafa concerner askan bi yëpp ngeen jël ay nit yu tekkiwul dara teg leen fa ñuy waxante loo xam ni dara dara dara lu ci am njariñ ci suba ba ci ngoon dara amu fa man lii dama dama romb saa njóogu sax moo ma rappelé ne lii yow yaa ngi ko wax nga ko ci biir émission bi mooy affaire de tuumalaate bii wala yooyu noonu yéen continuer leen di fonto sénégalais rek. yuuxul ci kaw yuuxul ci kaw. régler say problème mu kaa. يا لين من